salaamaaleykum mbokk yéen safoo seetaan Click Dakar 221 nee naa leen saa su ne Click Dakar 221 ak événement bu mag waaye Click Dakar 221 aussi tam euh, invité ku nekk la invité macha allah euh, tey nag dañoo invité koo xam ne yaakaar naa sénégalais yi am nañu ko ràññee am nañu ko ràññewul waaye travers monde bi bitim réew surtout rawatina France xam nañ ki nga xam ne mooy jëmm ji jàkkaarloo tey war a wax ak moom ci lu bare bari mu nekk fii ci réewu Sénégal nag war a wax moom lu bare bari tey euh, ak li nga xam ne mooy actualité aussi li nga xam ne mooy ay projet am soxna ñu ngi lay ziar bu baax a asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waa Sénégal di nuyu internet yëpp waaw. tey ñu fekk la fii macha allah tey ci euh, benn tali euh, muy ko xam ne yaakaar naa comme ni wax ko présenté monde bi xam nañ kan mooy euh, kii macha allah muy koo xam ne nag réew mee ko ñor Sénégal a ñor rawat na ndaw nii tey ñu nekk ci loo xam ne yaakaar na ay jafe-jafe la tey ci réew mi gis nañ ko tàng na deux jours yi yëpp euh, kenn moom lu génn ba ay mort am ci tey lool dañ ko waxtaanee mais tuuti boo doon wax tey kan mooy euh, Kadia Diallo lan ngay wax sénégalais yi. waaye itam Kadia Diallo doomu sénégalaise la. Mhm. Euh, juddoo Sénégal màggee Sénégal. Mhm. nekk doomu réew mi. Mhm. yàlla dogal nag muy dund ci réewum tugal. France. en particulier ma ñëw nag ci moment bi ci réew mi te wax dëgg yàlla mu nekk réew moo xamante ni euh, réewum teraanga la parce que Sénégal moom bu ñu nee Sénégal dañ naan Sénégal réewum teraanga la mm-hmm. te suñu valeur yu bari nag commencé di réer mm-hmm. mu jaaxal nag àddina bi nag yëpp nag mu tiital nag àddina bi yëpp ma defe ne nag euh, réew ñu demee ba bàtteeku mu nekk réewum teraanga mm-hmm. war mhm. loolu. Mhm. ñu bañ ko yàq. Mhm. mais fi mu nekk nii réew mi mu bëgg a yàq te la koy yàq it ci doomu réew mi lay jóge et donc euh, moo waral tey jii ma ne naa jàkkaarloog sénégalais yi surtout la jeunesse sénégalaise. mën a waxtaan ak ñoom xam ne ne réew mi ñun ñoo ko bokk. ñu ko yàqee defe naa ne surtout la jeunesse. parce que boo xoolee Sénégal euh, dafa nekk réew moo xamante ni. réewum ndaw la. Mhm. parce que boo xoolee quatre vingt quinze pour cent yëpp ay xale lañu te yaakaar ëllëg ci xale yi la nekk. donc ñoom war nañoo am benn comportement ak benn taxawaay boo xamante ni ba ñu mën a préserver seen réew ñu bañ ko yàq voilà parce que su yàqoo defe naa ne lu ci bëri ci ñoom lay répercuté waaw. macha allah euh, wax ji am na solo ñu gis en fait euh, da nga jóge réewu Tugal ñëw Sénégal mais bientôt nga dem mais da nga ne fallait nga def benn ITV interview pour euh, wax sénégalais li nga nar da nga nar polo da nga nar dugg ci langue politique wala en fait da joxe message nii rek. su ma neexee ma damay politique politique ma mhm. parce que yoruma base. amoo base. yoruma mhm. fi base. mais France. parce que sama réew moo ma ñor mm. sama réew moo ma ñor mm-hmm. man fekkee Abdou mu mm-hmm. fekkee Abdoulaye Wade mm-hmm. tey jii yàlla def ma fekkee Macky Sall réew mi depuis l'indépendance à nos jours nii mu commencé jóg ci développement mu nekk ci voie de développement mu nekk réew moo xamante ni dañ koy tabax mu nekk ci ayub Macky Sall loolu ñor ma lool loolu intéressé ma wax dëgg yàlla ma di ko soutenir nag. moom président Macky Sall. waaw di soutenir nag président Macky Sall. Mhm. ci œuvre yi nga xamante ni mu ngi koy def ci biir Sénégal. Mhm. ñëpp la teg ci seeni bët. parce que réew bala muy développé wu il faut ñu tabax ko te commencé na ko te dañuy ñaan yàlla aussi mu jëm kanam. Mhm. parce que souvent léeg-léeg nga daal di dégg ñu naan tali kenn du ko lekk. kon kenn du ko naan. waaw Sénégal loolu la ñu tomb di wax souvent. te réew defe naa ne bala muy am benn développement bi foog mu am ay infrastructure dem bi ak dikk bi yomb. Mhm. parce que dem bi ak dikk bi bu yombul defe naa ne développement mënu fa am yow boo jógee fii nga yore sa marchandise bëgg ko yóbbu Tambacounda te yoon yu baaxut déjà la ngay perte ci ay heures pour egg Tambacounda. très loolu. day yàq économie. Mhm. économie yokk mais bu ñu amee ay infrastructure yoo xamante ni tey jii su ma jógee Dakar bu leer na ma ne su ma xëyee fii mën naa yenn ji Tamba yóbbu samay bagage loolu intérêt population bi la. Mhm. Euh, te day yokk développement. Mhm. te du loolu rek la tabax du ay pont la tabax euh, du ay euh, tali la tabax. mu tabax ay hôpitaux. nañ leen te dëgg. dëgg rek a neex yàlla. parce que hôpitaux yi ñu commencé tabax fi amu fi woon université yi ñu tabax fi amu fi woon. Mhm. courant bi dañ daan gis muy xamat xamat. Mhm, ah waaw dëgg te yàlla dimbale loolu yëpp amatu fi. stade yi. ak yeneen ak yeneen donc kooku dañ ko war a jaajëfal encouragé ko dëgëral ko ba fi mu bëgg yóbbu Sénégal ñun ñëpp ñu dem see gis suñu bopp. parce que Sénégal tamit nag yàlla may na ko dara muy ay ressources te ñaan nañu yàlla ressources yooyu muurloo ko mais suñu bëggee nag ressources yooyu jëriñ il faut que dëkk bi nekk ci jàmm parce que lu dul jàmm jàmm moo ko gën parce que soo amul jàmm doo tal soo amul jàmm parce que bu réew mi tàkkee Mhm. soo bëggee génn sa kër dem wuti ji loo lekk doo ko man mhm. donc nañu ñaan jàmm ak dal ci réew mi mais jàmm joojee est-ce que est-ce que le président Macky Sall euh, mënu koon sàkku parce que dañ naan en fait le président Macky Sall dafa jàpp ne moo nekk ci nguur gi moo nekk ci euh, moo nekk président ma tax lu ko neex lay def ku ma am day ku ma amul day voilà jàmm jooju nag jàmmam jooju bari jooju moo ñu yóbbee ba ñu egg ñu egg kon da nga gis ne moom maanaam daal day day sàkku jàmm daal. voilà jàmm jooju nag moo ñu yóbbee ba ñu egg ñu egg que est ce que kuy sàkku di nga def en fait euh, tey euh, yaakaar naa gis ngeen li am ci réew mi euh, bu nu xataat bi am ci réew mi mm-hmm. kumba am ndey kumba amul ci réew lépp le président Macky Sall moo ko def tey. gis nga nee nga kumba mu am ndey ak kumba mu am ndey population sénégalaise bi ñu ko indi. ñu ko andee. parce que nañu lañ ko andee dañu bàyyiwul justice liggéey liggéeyam parce que bu ñu jàppee journaliste képp koo xamante ni da nga yore micro nga daal di taxaw manifester ne place journaliste boobu du prison est-ce que journaliste boobu def na la ko war est-ce que wax na la ko war. Mm-hmm. su transporteur bi defee naka su dul noonu ñu daal di koy jàpp transporteur bi daal di taxaw mais waruñu koo téye mm-hmm. léegi juste bi kan la war a téye baadoola bi nga xamante ni. moom amul gannaaw amul mouvement bu ko topp kooku su defee ñu daal di jël tëj ne ràpp tëj ci kaso mais képp koo xamante ni da nga nekk une personne influente soo defee naka su dul noonu ña nga àndal ñëpp jóg wàcc ci tali bi ne kooku place am du prison te pourtant la mu wax jaaduwut defuwut te ña ànd ak moom mm-hmm. naan ko place de prison mënoon nañ ko mën a artu ko lii baaxul ci réew mhm. mais duñ ko def mhm. donc ñooñu ñoo indi kumba mu am ndey kumba mu amul ndey xëy na nag boo nekkee njiitum réew te nga boot lépp loo xamante ni safaan la dañ naan la yow mi jiite ci yow la mais président Macky Sall defe naa ne dalam ak teeyam moo ñu yóbbal yëpp ak tolérance am aussi mais il est temps que mm-hmm. sincèrement mm-hmm. que l'État jël ay responsabilités mm-hmm. parce que réew euh, ay charte la ay loi la mu tënk na population bi la ñëpp képp koo xamante ni doomu sénégalais loi yooyu ak charte yooyu moo la tënk ku ci nekk war a tënk ci loi yooyu ak ci charte yooyu suñu bëggee suñu réew jëm kanam mais bu ñu wàccee charte yooyu rek du baax bu ñu manqué respecté suñu institution yi tamit te parce que fi mu nekk ni léegi loolu dafa mel ni slogan la def lu la neex wax lu la neex xas ku la neex saaga ka la neex nga ne du mu fenn wala buñ la jàppee nga ne président Macky Sall la y a des choses tamit mm-hmm. nit ñi ñoo war a déglu si seen xel parce que boo nee bu ngeen nekk ay citoyen sénégalais yow nga tooñ ma mm-hmm. man ma am droit yow nga am droit ma sentir ne que danga maa tooñ ma daal dem ci yoon kooku yoonu président Macky Sall nekk mhm. parce que yow mi ak yow mi nga xamante ni kooku dafa sentir ne dañ dañ ko tooñ mhm. yéen a bokk yem ci moom parce que yéen ñëpp yàlla moo dogal mu ilif leen donc mënu ma ñaar loxo kenn ki ne ko déedéet parce que kële c'est une personne influente si une personne boo xamante ni ku ñu xam la. kooku am na droit def lu ko neex bàyyi ko mu dem déedéet yóbbu ko noonu donc su réew mi yàqoo tey jii buñ ko jur politiciens yi lu ci ëpp am na politiciens yi ci liggéey mais population liñ ci yàq moo ëpp mm-hmm. mais diggante Ousmane Sonko projet bi ak ki nga xam ne moom Mame Mbaye mu ngi ci APR euh, ci euh, Macky Sall kii mu ngi ci opposition bi tey euh, diggante boobu la ñu ñaar ku ma am day ku ma amul parce que Ousmane Sonko ko jaay doole dañ ko bundu xataal tey parce que boo xoolee projet Mame bi dañ ne Ousmane Sonko tooñul ki nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang en tant que koo xam ne macha allah APR nga nekk tey parce que ni nga waxee ku nekk xam ne ne APR nga nekk ku dégg xam ne APR nga nekk tey le président Macky Sall moom nga nekk ci ginnaawam tey macha allah nga nekk fële ca France nag di vivre fële ca France mais tey nga nekk Sénégal toog li am nga ne xaaral ma def interview tey projet Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko tey boo doon di ko tegal lan lay wax ci loolu. est réew mi fi mu nekk dañu dëgg dafay tumurànke. dëgg dafay. dafay tumurànke tey parce que tey jii booy wax dëgg kenn du la may ñëw mënal xaste mënal mais pourtant Ousmane Sonko ci dëgg la nekk. Euh, dëgg boobu. wala nekkul ci dëgg. déedéet. nekkul ci dëgg. parce que nit ki doo tooñ surtout koo xamante yow da nga aspiré. ne da nga kon da nga bëgg Ousmane Sonko dafa tooñ. mais bien sûr parce que ba muy wax waxu ko ci biir néeg. waaw. dafa yore micro nii ma yore micro bi. Mhm. jàkkaarloog àddina. Mhm. mu ne Mame Mbaye Niang dafa sàcc vingt neuf milliards askanu Sénégal. Mhm. te Sénégal ñuy jooy ne dafa ndóol. Mhm. pourtant loolu am na ñu ko wax tey tey peretu leen peretuñ leen. waaw ci waxin parce que moom dafa aspire mooy dama delluwaat rek dafa aspiré bëgg a yore réew mi. Mhm. donc lépp lu muy wax ci nit daf ko war a leer. Mhm. ba pare dafa insister. à plusieurs reprises mu ne Mame Mbaye Niang dafa sàcc askanu réew mi. te loolu mën a yee fit na lool. parce que yow bu ñu nee dañ laa fal teg la ci boppu réew mi pour nga liggéeyal réew mi ñu ne dangaa sàcc suñuy milliards am ñoo xamante ni bu ñu xëyee amaana amuñu lu ñu am na ci ñoo xamante ni bu ñu xëyee amaana amuñu lu ñu fajoo ñu ne koo xamante ni ci état bi la nekk sàcc na suñu benn milliards mu mën a indi fitna mais kooku am na droit porter ko pour setal deram parce que citoyen sénégalais la. Mhm. bés ko tuumaal mu ne ko nag tuuma jooju man ma nekk doomu Sénégal. Mhm. di liggéeyal askan bi ma yore sama njaboot nga ne damaa sàcc vingt neuf askan bi dama bëgg nga leeral loolu askan bi xam ndax dama koo jël wala jëluma ko. Mhm. te li ko Mame Mbaye Niang wax c'est clair soo andee ay preuves man. ma tekki samay ndombay tànk ma jiibal sama bopp justice loolu c'est simple. mais daf ko ko ñu foofu parce que xam na Ousmane Sonko xam na ne boo xam ne ay am na lu ko ci fekk parce que loolu Ousmane Sonko waru koo saytu. xam nga loolu tamit ja loolu loolu mooy problème bi. mais dem parce que déjà jugé nañ ko. Mhm. parce que yow boo waxee ci dara nit ki nit ki sant ne ko dama dañ maa tooñ. Mhm. ñu ne waaw parce que bu demee foofu it. xam na la ko cay fekk. Mhm. mais ba mu xamee la ko cay fekk wax dëgg yàlla mu bañ a tooñ. mu bañ a wax daal. non mu bañ a tooñ. Mhm. non wax mu bañ a wax. tooñ bi. voilà kon day parce que tooñ bi. Mhm. mooy que accuser nit ki ci loo xamante ni teguwul fenn. accuser nit ki ci loo xamante ni amoo ko ay preuve voilà parce que bu gàddu woon ay preuve am na mu ko waxee ne man yore naa preuve yëpp. waa loolu la waxoon. yu incriminé Pambay Niang. mais dafa waxoon ngeen naan mu ko. mu taxaw dellu ne ma ci internet laa ko gisee ci koo xamante ni yow da nga da bëgg a yore réew. bu hmm. ñaari naan ci internet bi laa ko gisee. Hmm. kooku si la honte c'est la honte te ba pare wax dëgg yàlla kay wuy ji plainte biñ la plainte. Hmm. même benn citoyen ordinaire. suñ ko plainté dafay dem wuy ba xam plainte boobu fan lay mujj. est-ce que loolu jar na woo kaay la dee. est-ce que loolu jar na woo kaay la ñu rayante est-ce que loolu jar na woo kaay la yàq la ñu commencé tabax mm-hmm. parce que li xew démb lu doy waar la doy waar mosul am ci politique Sénégal parce que ñu doon ay doomu sénégalais nit soo amee lu la naqari ko mën a ñaxtu mm-hmm. parce que am nga droit ñaxtu mais amoo droit yàq li nga xamante ñëpp ñoo ko bokk mm-hmm. te commencé ko di ko tabax parce que léegi ñoom ñaxtootuñu ne dafa am problème diggante Mame Mbaye ak ak Ousmane Sonko. Mhm. ñoom li nga xamante ni ñu ngi koy commencé di tabax ci réew mi moom la ñu bëgg a yàq. Mhm. parce que seen leader Ousmane Sonko moo taxaw daal di ne président Macky Sall liggéeyu fi dara. Mhm. defu fi dara mais lu tax li mu commencé di tabax ñoom ci seen bopp ñu bëgg ko détruire. muy berté bi nga xamante ni eggagut. ñu bëgg engagé terre bi. te mu nekk alalu askan bi mhm. mais est que loolu dafa bokk ci politique politique yàq daf cee baaxut waxante lu ñaaw daf cee baaxut politique conviction la ak ay débat mhm. ak programme mhm. nga mën a convaincre sa population ne man mi réew mi kat fii laa ko fekk mais man su ma ñëwee fii laa ko bëgg a réew mi kat lii am na fi waaye lii manqué na fi lii ak lii lañ fi war a dab waaw muy ci njàng mi mu ci santé bi muy jeunesse bi nga xamante ni am amuñu liggéey toll ci liggéey toll jariñ seen bopp jariñaale seen waajur nan lañuy def ba développer suñu réew ba jeunes yooyu mën a am suñu sonn ñaq jariñoo ko mais pas yàq parce que lii ñuy def nii mënuñu yóbbu fenn voilà Ousmane Sonko citoyen sénégalais la. Mhm. Mame Mbaye Niang citoyen sénégalais la ñu am ay droit mhm. donc suñu leen woowee si yoon. Mhm. vraiment war nañu dem wuy ji calmement lijjanti seen problème ci yoon. ku ci nekk lu la yoon lay di jël voilà. kon mhm. kon da nga bëgg wax ne en fait tor bi yëpp ak yàq bi yëpp ak euh, li nga xam ne moom la ñuy saccagé ci Sénégal Sénégal lépp ko bëgg a jël tor bi jox ko xam ne Ousmane Sonko. mais Ousmane Sonko moo woote. mais mais bien sûr. kaayal gunge ji. am na Ousmane Sonko dafa taxaw ne gatsa gatsa. Mhm. moom moo taxaw ne gatsa gatsa. waaw moom ko wax. Ousmane Sonko moo ne def naa sama moom moo ne. damay jël sama bakkan joxe ko xale yi topp ko si gis na nit ki soo nekkee un homme influent loo def xale yi ànd ceeg yow mhm. sa communication day am fu mu yem. dëgg la bala nga génne di wax daal da nga war a xool bu baax. voilà da ngay xool parce que ñu nga xool ñu nekk sa ginnaaw. Mhm. nga xool sa communication. ba pare gis nañu ndax su ma génnee lii. Mhm. dina amal njëriñ sama askan. ndax dina amal jeunesse bi nga xamante ñoo ànd ak man. voilà mais moom. Euh, lépp bu waxee rek nga daf sa gémmiñ mhm. parce que da ngay dem ba ne est-ce que ñii bëgg nañu réew mi mhm. voilà ñu gis ne en fait euh, comme lu ñu wax toujours rek euh, lépp rek euh, li ko andi mooy procès Adji Sarr bi moo andi li yëpp bañ ndeñeen bañ demee xool ba xam ne procès Adji Sarr bi maanaam mun cee créer Ousmane Sonko dara ci lañ andi Mame Mbaye Niang mu rof ko ci pour mu mu kale mais bu ñu ñoo andi Mame Mbaye Niang rof ko ci bokkul parce que bu ñu boolee lu bokk. mais sénégalais bi loolu la ñu am. voilà xëy na gis-gis. ñëpp ñu la ñu wax. xëy na gis-gis sénégalais yi la. Mhm. dama ne la Mame Mbaye Niang citoyen sénégalais la Ousmane Sonko nekk citoyen sénégalais parce que mënoo taxaw man mii tey jii kii jiiñ ma sàcc mu leer ma ne sàcc ma mais dama koy yóbbu ci yoon ne ko leeral loolu loolu moo indi diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang parce que da mënoon nag taxaw. Mhm. di tuumaal nit ki ne sàcc la. Mhm. parce que c'est pas la première fois loolu lañ fi defoon Aliou Sall. Mhm. ne dafa sàcc suñuy milliards. sénégalais bu nekk taxaw ne sama 400000 man dofuma jënd jàpp ma Sénégal mu am ay ressources. Mhm. pétrole ak gaz. Mhm. ñu war cee gagné ay milliards yu dul jeex ba suñu génération yi di ñëw man awma dara lu ma ciy séntu lu 400000 francs loolu yenoon na maanaam est que loolu yenoon na maanaam. parce que bëgg yàq ba pare nag yore population boo xamante ni. ils sont émotifs. Mm-hmm. ils sont émotifs te loolu baaxut te lu politiciens yi doon tey jii population bi. ñoom ñoo ko def parce que ñun ñoo leen di fal. Mm-hmm. lii ñu doon population bi leen ko def donc pourquoi pas ñun duñu xoolaat bu baax kañ ñuy fal bu ëllëgee ñu bañ a rëcc. est-ce que le président Macky Sall ki nga xam ne moom nga àndal tey est que mu ngi surtout population bi parce que tey li muy def population bi am ànduñ ci benn yoon. majeure partie bi yëpp boo xoolee ànduñu ak le président Macky Sall pourtant te mu nekk yu nguur est-ce que kon mu ngi leen di gestu est-ce que mu ngi def lu bëgg. parce que ah, xam nga xam nga xam nga Sénégal Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni réew mu doy waar la. Mhm. parce que boo seetloo temps Senghor. Mhm. bi mu fi nekkee dañ ne doy na doy na doy na. Mhm. Senghor nekk tubaab mu daal di jël pouvoir bi léegi ko Abdou Diouf. daal di dem yoonam. ju Diouf nekk fi liggéey fii lam fi war a liggéey. Mhm. population sénégalaise bi ne na fi jóge doy na sëkk. Mhm. jéemuñu xool ne que ah président yi lañ leen imposer pour ñu liggéeyal ñu suñu réew. Mhm. mais politique politicien la ñuy def nit fël na rek daal di ñëw nañu ànd kooku ngemb ko mu yore ñu suñu réew. su ko defee ëllëg réccu rek lay mujj président Ablaye Abdou Diouf jóge fi président Abdoulaye Wade ñëw bu mu ñëwee mu commencé liggéey la ñuy wax Macky saal lañu daal di koy wax kenn du lekk tali mooy li ma la wax rek réew boo ko bëggee tabax ñu gis ne ndaw ñi dem nañ aussi itam ba parce que ñu ngi euh, maanaam euh, wax euh, li ñu wax bokkaale parce que gis nañ ndaw ñoo xam ne dañoo jël ay njëlu photo Ousmane Sonko def ko ay njël ñenn ñi dem ba naan tey suma Ousmane Sonko waxoon du bul julli du julli ñeneen ñi aussi dem ba naan Ousmane Sonko moo ñu gënal xalifa général ci réew mi yëpp. est-ce que lu wax boobu. ñu ñu bëri di ko métti lu ay kilifa ak ñeneen est-ce que wax boobu kan moo ko andi ak lan lan moo war a. mais xale yooyu xale yooyu dañu wéeru sont perdus parce que nit ki soo yoree say waajur nga fekk ci say waajur ci benn affaire nga xëy xëy benn bés nit ñëw ne la loolu baaxul parce que gis nga xale yi di wax ni du er hasard mm. du hasard parce que déjà ñu ngi ngañ dem ba wax na ko nee na li gën a tuuti ñoom ci seen projet fal Ousmane Sonko moo ci gën a tuuti. Hmm? ngañ dem ba ko wax àddina di ko dégg. Hmm. donc bu dee ñoom du fal Ousmane Sonko. Hmm. moo leen tax a jóg lan moo leen tax a jóg parce que Sénégal fii amul kenn ku fi jàmm nit sunu kilifa diine yi. jaamloo wuñu kenn nit mhm. yàlla suñu borom subhanahu wa taala la ñuy mhm. di ñu won lan la ñuy jaamoo suñu borom di ñu won yoonu siraatal mustaqim donc loolu du jaamu nit parce que dem nañu ba léegi kenn war suñu kilifa diine mhm. su demee ba ay xale yu ndaw taxaw di saaga ay kilifa diine yoo xamante ni te pourtant doo dégg ex kilifa diine di dégg ex premier ministre di nga dégg ex président mm-hmm. mais doo dégg jamais ex xalifa diine mm-hmm. parce que lu ñu fekkee seeni i maam seen bàyyi ñu bàyyi ko fi mm-hmm. ba ilaa yow mi di diñ lay nekk donc tey jii tey ñoo mënuñoo xëy xëy benn bés dañ koy dindi ba mu set dañu nekk nag ci réew laïque pays laïque lañ nekk ñu ànd ak ci chrétien musulman avec d' autres ñu am nag harmonie bu baax suñu biir mm-hmm. donc tey tey tey bii bu ñu bëggee jël mélanger politique ak diine jooju bëgg koo yàq ndax bëgg jot nguur mm-hmm. est-ce kooku loolu mu leen di wax bis bu jotee nguur dina ko mën a appliquer du ko mën a appliquer parce que benn sénégalais du ko nangu parce que ku ci nekk da nga am sa ngëm-ngëm ku ci nekk da am sa tariixa donc ndax bu bàyyi bàyyiloo kenn tariixaam mais loolu ñuy wax c'est peine perdue nañu delloo siwaat xel yi parce que nguur yàlla subhanahu wa taala moo koy joxe mm-hmm. parce que sénégalais bu ñu jógee ne Ousmane Sonko mm-hmm. dañ ko sonal mm-hmm. Ousmane Sonko mais loolu yow xam nga ca bët dañ ko sonal non même bu tooñee ak bu tooñee dañ ko sonal non kon saraluñ ko. parce que Ousmane Sonko bi mu génnee ba tey. xoolal démb dañ ko dañ ko pompé en fait man ñu bëri ñu ngi naan. mais Ousmane Sonko ci lay jaar bon am ay poumon ay feebar ay affaire yooyu parce que dañ ko lakk na ma du lakk na ma du propagande boobu noonu am na lu ci def tey. xam nga ñooñu dañuy tayaat gis nga bi ñuy euh, seen meeting boobu. Hmm. stratégie la. mirin. parce que ñoom dañuy déclaré le 14 le 15 le 16. xam. le 14 ñu ne ñoom dañuy def seen giga meeting. Mhm. nit ñi jóge partout ci biir Sénégal. Mhm. est-ce que xam nañ ñu dugg ci biir Sénégal. est-ce que xam nañ. mënoo ne yow da nga bëgg nguur. Mhm. ne damay taal réew mi mënul nekk mënul nekk da xool démb li mu yàq. commerçant yi tëj école yi tëj. mais loolu tam est ce que du le président Macky Sall bu ne Ousmane Sonko rek toujours. parce que tey lan moo tax delul ginnaaw wala mu woo Mamba ñaay na ko kaañu waxtaan ak Ousmane Sonko. mais yoonu yoonu président Macky Sall nekkul ci loolu. mais président rek mooy suñu président mais bu nekkee seen président. coow bu nekkee fenn fi non non attends soxna si. coow bu nekkee fenn fi mhm. mhm. bu ëpp dayoo. Mhm. kilifa gi mooy jënd woo njabootam. teg parce que tey boo. yow yow yow boo amee kilifa diine gi kii bi day ñëw nu mu tëj président de la République. non bokkul de bokkul de man ak bokkul. yow boo amee coow exemple yow. Mhm. ak euh, Ousmane Sonko wala keneen koo xam ne en fait euh, beneen beneen parti la nekk. Mhm. Macky Sall moo leen jiite ñëpp. am na mhm. droit génn. waxtaan ngeen waxtaan avant tout. waaw loi sax loolu la wax. mais non ba Cheikh Yérim Seck wax na ko ci livre bi bi mu toogee nee na yenn yi maam Ndiaye Magna ak ki nga xam ne mooy. Euh, ma ne la. avant mu fii. kay waroon nañu a huit la foofu nag la peuple mais président moo sénal moo bëgg lii. non non peuple sénégalaise dafa rek. Mhm. foofu lañu ñu war a wax Ousmane Sonko da ngay aspirer pour bëgg a jiite réew mi donc bàyyil li ngay wax ci koo xamante ni amoo ci moom lu la leer. Mhm. loolu ñoom ñoo ko war a wax. léegi daal Ousmane Sonko c' est quelqu'un koo xamante ni tout est permis pour lui. non parce que xam la ma tax. non non dafa nànk rek. Mhm. parce que Ousmane Sonko donc moom pour lui tout est permis lu ko neex mën na ko wax ci nit lu ko neex mën na ko doxalee. non defagul noonu déedéet. mais bien xam ne Ousmane Sonko li am. ci Mame Mbaye Niang lu mu wax moom. Ah. lu mu wax moom tam. Mhm. ci li nga xam ne mooy quatre-vingt-quatorze milliards yi. Mhm. kon dèjà Ousmane Sonko da ko wax ba ñëpp dégg ko mais Mame Mbaye Niang xam ne loolu am na mais daf ko am fu mu ko képp mooy moom du moom moo ko war a saytu du moom moo ko war a génne wax ko. du moom moo war a leen gërëm foo doon képp mais am na. li mu wax c'est clair et net les 94 moom épinglé ma ko parce que 94 milliards yi du moom moo ko war a gérer li mu wax c'est c'est clair donc bu dee loolu am na wax dëgg yàlla est-ce que loolu jar na gàtt sa gàtt sax ngeen baal ma ci kàddu bi. est-ce que loolu jar na kaay non gàtt gàtt politique la rek affaire yi dafa dem ba sës am na fooy dem xeex xeex la rek yow tey lu ma jot dama man voilà léegi damay xeex ak yow mhm. lu ma jot dama lay sànni mhm. yow te lan ma sànni mën na ma gaañ man nii léegi ma bàyyi nga gaañ ma parce que da ngay politique man ma bàyyi léegi nga yàq parce que da ngay a wul mhm. loolu yenuwul maanaam voilà parce que muy Mame Mbaye Niang yoo muy Ousmane Sonko yoo képp koo xamante ni def na ko si moom war nañoo taxaw ne déedéet mais Ousmane Sonko mënul wax dëgg yàlla gàkkal turu Mame Mbaye Niang Mame Mbaye Niang léegi nag dama bëgg loolu leer ñu ne déedéet la ci président Macky Sall euh, war ñaar loxo Mame Mbaye Niang la bàyyi. waaw parce que parce que parce que njabootu Mame Mbaye njabootu njabootu président la Mame njabootu Macky Sall la. man njabootu président la yow njabootu président la Ousmane Sonko njabootu président la moom la wax sànq voilà dafa ndànk mhm. su dee ñoom ci nekk da sa morom ne daf maa tooñ di dem fi mbaxana doonee benn avant mbaxana doon a waxtaan ci kilifa bi na ko tey borom bopp la pourtant Cheikh Yérim Seck livre bu bind bi mu na uh-huh. Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko mën nañoo bañ a ak fii am na loo xam ne avant mbaxee ñuy àgg ci tribunal wala ñuy àgg ci yoon. Mhm. war nañ ko mën a waxtaanee ba pare. Mhm. ne loi sax moo ko wax moom. waaw seen yëriñ fekk du waxantu. mais dañ ne gendarmerie. du waxantu. dafa nag. mais boo déggee wax loolu maanaam le président Macky Sall mooy kilifa. def ki yeewoo Sénégal tey. nga bañ ko amul naqare la. Eh, dafa nag. kon damay foti bi ma dama ko jox le président Macky Sall. parce que avant ñu dem tribunal dem nañu gendarmerie. Mhm. ba ñu demee gendarmerie première fois bi mu demee wuyu ji. Mhm. dañ ne dafa fàtte lapsus la def xaw ma UG xaw ma ñu ne ko d'accord amul problème rapport ba nga yor indi mu daal di dem dellusiwaat mhm. gendarmerie mhm. pourtant foofu xam na ne yoru ko mënoon na woo maa may ñaan ñu négocier foofu mu yem foofu mais dafa insister. effectivement loolu tam nangu naa la ko ba léegi parce que nit ki boo euh, tooñee bu sa waxaat ne damaa tooñ loolu mooy yëfu jullit voilà mënoon naa yem foofu mais def ko dane man preuve yi ma yore tribunal laa ko yóbbu ñoo kon yóbbu leen tribunal dañ ma lañ leen waxante dëgg rek neex yàlla nag voilà mu ne moom li mu yore du ko joxe ci gendarmerie bi yor na ay preuve tribunal la ko yóbbu mais ñu dem tribunal léegi ñoom léegi léegi ñu dem daal dem tribunal ñu ne pourquoi muy dem tribunal mais Ousmane Sonko nag mooy kan mooy kan